bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi sabi ridwani wattamkin wa ala jamihi man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin sëriñ bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi lay nuyu ci turu mbooloo mi fi teew ji waa ahlul quraan ndax ñoom ñëpp ay sëriñ daara lañu di liggéey ci téere bi aussi yéen ay jeexal seenug dund ci jàng alxuraan ak di ko jàngale ñoom ñëpp itam sag njaboot lañu ndax ay taalibey sëriñ tuuba lañu te yaa fii sëriñ tuuba teyit muy lenn ci waa raabitatul madaaris alxuraan yi muy farxu tuuba nga xam ne li mu lëkkale ci ay xaliya war na mat ñaar fukk ak lu topp sëriñ xaali jaxate jiite ko am na farxu mbàkke bawal ak daaru salaam ak njaareem moom it sëñ basiiru jàng moo ko jiite ak daaru moxti sëñ muudu mbàkke njaay moo ko jiite ñoo àndandoo teew fii fi sa kanam di yeesal seenu jaayante ak seen pasteef ci sëriñ tuuba di ko yeesal ci yow ni ko taali yépp baaxoo di defe fas yéene topp sa gannaaw di la jàppale ci liggéey bu réy bi nga sumb te muy fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci alxuraan ak xam-xam loo ci yéene lu mu rëy rëy yàlla nga ci daje tawfeexi sun boroom ak ndimbalam lu kawe sa njort noo ngi teew teewale mboolam ñi bokk ci raabita bi ci biir réew mi ndax ñoom ñépp ñoo amoon yéene ànd ak nun siyaare bi ndax noo bokk ak bëgg bokk ay xalaat muy luy yëkkati téere bi ak lu ko gën a ñoŋal ndax moo mbooloo mi loolu moo ko sosoon ci jamonoy sëriñ saaliwu yàlla yàlla yokk ay leeram te dolli ko ay ngërëm ci kër sëriñ ba Basiiru Mbàkke moom sëriñ Faadilu foofa la soso woon moom kii sëriñ saaliwu daanaanu sant njàngum alxuraan ak yëgle ko ci biir réew mi ak bitim réew ba ci jamonoy alxaaji baara muy doxe noonu yal na nu leen yàlla fayal ngeen ji pay mu boole nu ak yow nga taxawu nu bu baax ànd ak nun saa su ne nga di nu wax wax leen ma nu ngeen ko bëggee mbooloo mépp bu seen bu seen bët xonqee seenum xel yow lay jëkk a daj ba jamonoy sëriñ siidil muxtaar yal na yàlla yokk ay leeram nga gën koo fedd li yëg nañu ko bu baax mbooloo mi ñu ngi gërëm ak sant sab taxawaay di la ñaanal nga yàgg fi lool ci lu yàggul rekk gannaaw bi sëriñ bi wàccee ab liggéey ñëw nañu fi ànd ak lenn ci waa bi ci turu mbooloo mi di la ko siyaare ak di dénkaane sunu bopp ak di dénkaane mbooloo mi ñu ne ko baaxoo di defe ak ku fi toogal sëriñ tubaa gën laa sant yit ci boole gi nu gi ñu nu boole woon nga wax ne nu booba dañu ma yilif di ma jox ndigal tey nag kenn laa ci yéen lu ngeen ma wax danaa ko def loolu mooy saw doxin li koy firndeel mooy yëngu-yëngu yi xew bu yàggut buy kilifay àdduna yi ak ñi ñu seqal réew mi te bu gën a te mu gën a soxal waa daara te mooy projet de loi boobu yi nguur gi tëral jamono sëñ Sidil Muxtaar bëggoon ko wate te muy luy gàllankoor liggéeyu daara ba ñu ko yëgalee sëriñ Siidil Muxtaar wax ko la muy jur mu ne loolu sama bakkan laa teg daara nañu ko bàyyi ni ko mag ñi bàyyi woon bi mu koy wax maa ngi toog man ak sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Soaybu mu daldi wax ne danaa ci yónnee gannaaw ba ba Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir wax na ma ne ma seen mbir ma teg nañ ko fi suuf sëriñ bi yónni woon na ma ca ba ci fan yi ñu yëkkatiwaat ko déggoo ca ak ñañ ca déggoon ba ne dañ koy wate ba nga ba nga ko yégee nga woolu sëriñ xaali jaxate laaj ko mbir mi nu mu demee mu wax la la mu ca xam ak fa mbooloo mu nekk nga ne ko baax na loolu moom dama ciy daal di taxaw danaa ca yónnee yëg nanu ne taxaw nga ca bu baax ndax président génn na wax ak mbooloo mi ne dossier bi teg nañ ko fi suuf jëwriñam ji mu toftal ci boppam wax na ko kon sëriñ bi jërëjëf yàlla na nga yàgg fi sunu kanam li ci dolliku mooy mbooloo mi muy waaraa bi te bi seenub taxawaay ak seenub gis-gis ci dossier bi mooy ñoom de néewuñu nañu dindi lii néewuñu nañu dindi laa dégluwuñu it li ciy lor daara dindi nañ ko ñoom daal dañoo wax ne loolu nguur gi tënk namm ca la ca namm ba koo yóbbu ca pénc ma ndaw yi réew mi wate ko nee nañu loolu téere bi ba mu ca bokk nañu ko fi bàyyi mooy seen xalaat démb mooy seen xalaat tey te boo liggéey incha allah mooy doon seen xalaat te sëriñ bi foofu ñu nekk njabootuk sëriñ tubaa gépp foofu lañu nekk taalibey sëriñ tubaa yépp foofu la ñu nekk ndax ñoom amuñu kudul sëriñ tubaa mooy seen yaakaar tey ak ëllëg te xam nañu mu baax diggante sëriñ tubaa ak alxuraan mooy ndaj xolam mooy ndaxañteefam mooy ab toolam mooy wirdam mooy am koomam mooy ab xaritam mooy wéttalam di soppem mooy léppam dundam gépp ci liggéeyal alxuraan ci la ko jeexal li mu def ci alxuraan bët mën cee tege ba alxuraan wàccee ba léegi lu mel ne moom mësula am ci kaw suuf te moom kii sëriñ bi dafa dénkaane woon ne jàpp leen ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dëgër fab alquran ñage ko lu taxaw ca gannaaw ñag ba woo leen bu leen ko wuyu seytaane la lu ne cirib fekk leen ci biir ñag bi bàyyi leen ko ak man kon sëriñ bi mbir màngoo bu ñu bëggee jàmm ci seen bopp mbaa ñu bëggal ko réew mi alxuraan yi sëriñ Tuubaa yi nañu nañu ko bàyyi ndax kat bu ñu ko defut lu leen dal bu mu leen bett liggéey bu sell bi sëriñ bi liggéey ci alxuraan ci digganteem ak boroomam sunu borom du seetaan kenn di ko xajamal te lu ñu ko te li ñu ko bëgg a lëkkaleel mooy li mooy lim gënoon a sib kon sëriñ bi jërëjëf yàgg ngaa dalal sunum xel sunu yaakaar gën naa dëgër rafet na njort bu baax xam na ne boo nekkee fi sunu kanam li nuy regal dunu ko gis ndax naka jekk yaa doonoon sunu jëwriñ tey Serigne Touba yow la dénk tool bi dafa am wenn bayit ci nooru daare xam ne xalim ak Serigne Touba lisaanoo xaalam da cey waxante ak yow ndax ba ko Serigne Touba di wax booba kenn ci noonu fekkewu ko wante bu ko waxoon tey jii dajeeg lii mu dajeel xel yépp ci yow lay dem muy wacc xal bi jaahil muntaqa hayaati riaayat al fil ayaati wajhal bi jaahil muntaqa hayaati rihaayat al quraani fil aayaati loolu leer na nañ leneen la ci dolliku mooy am na rafet njort bu baax am na njaakaar ju dër dëgër ne bu nu nekkee ci sa gannaaw te ci tee bi téere bi te boolewuñ ko ak dara lu nu bëgg sun borom danañ ca fekk seen barke ndax jamonoy sëriñ saaliwu yal na ko yàlla yokk ay leer dafa am suñu menn mbokkum sëriñ daara mu ñu téye jàpp naa ne mi ngi ci mbooloo mi mbaa ay bokkam ñi ngi fi ba ñu demee ci sëriñ ba yëgal ko ko daf noo wax ne danaa ci wax waaye su ngeen demee na ngeen ñaan ba nu ca jógee nu daal di daje waxtaan naka la ñuy war a def ñu ne nañ jàpp bi sàng muy bisum ñaan suñu ñaanee ba noppi nañu yëngatu wane sunu naqar ci li nga xam ne moo xew ci daara bi ba ko sëriñ bi yëgee daf noo woolu fekk bañ koy daataan waajal mboolem kilifa yi nga xam ne mooy kilifa àdduna yi fi jege muy préfet ak sous préfet gouverneur ku ne yónnee nañ ko ab lettre xamal ko yëgal ko ne ko lii la ñuy waaj a def ba ko sëriñ bi yëgee dafa wax ne na ngeen fomm loolu yi ngeen doon waaja def ku ngeen ko yëgalu na ngeen ko wan ne ne fomm nañ ko su ngeen ca noppee ngeen dikk wuy si ma nu daal di def noonee mu nu waxoon daal di dikk wuy si ko ba mu ñëwee mu ne loolu yi ngeen di sàkku yónnee naa ca yaakaar naa daañu ko teg fi suuf mbaa su fekkee teguñu ko fi suuf su su ngeen dee yëngu mbaa ngeen di jàng loola maa ngi yéen noo koy ànd sëriñ Abibu Saaxu mi keroog fa la ko fekk mu ne ko sëriñ bi kon danoo bëggoon a wéyal njàngum alxuraan mu ne loolu lii laa ragal ngeen am lu leen naqari jàng alxuraan ñemewuma ko su ñëwee la muy jur mën naa ab seeni loxo kon sëriñ bi donc yaa ñu ngi lay déglu foofu la ñu nekk te duñ bàyyi bi seen bakkan lañ ci teg ba ba ñuy faatu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. seen yitte ji. sëriñ bi mu ne seen yitte ji. ak nii ngeen ko defee. ak nii ngeen ko defe dama ko fekk ci sama bopp. nee na da koo fekk ci boppam. kon noo koy ànd. nee na kon noo koy ànd. lu ngeen ci ragal. nee na lu ngeen ci ragal. noo ko bokk. noo koy bokk. ko bokk ragal. noo ko bokk ragal. ngeen ci bëgg. lu ngeen ci bëgg. noo ko bokk. noo bokk. noo koy bokk wut. noo koy bokk wut. te am ca xel mu dal nag. te am ca xel mu dal nag. ndax lu nu bëgg xañ loolu. ndax lu nu bëgg a xañ loolu. xañ nu sunuy bakkan moo ko gën a yomb. xañ nu sunuy bakkan moo koy gën a yomb. kon nag pësteef boobu rek. nee na kon nag pësteef boobu rek. yitte jooju. yitte jooju. dogu googu. dogu googu. moom rek nga ci am solo. kon noonu rek eh, kon noonu rek la demee. wax ji jërul guddal. wax ji jërul guddal. nee na Cheikh Mouhamadul Bachir na ko naññi. dégg na ko bu baax a baax a baax. waaye nee na ni mu ko waxee rek. nee na nii ngeen ko waxee rek ni ngeen ko fekkee ci boppam. xelam. xolam. jëmmam. itam jëpp. noonu rek la demee. nee noonu la demee. gisuma leneen. nee gisul leneen. gisul leneen. ki nga xam ne moo mooy sunu mooy sunu kon ki nga xam ne mooy sunu wéeruwaay. ci ci bitti. biir ak ci bitti. tey jii ak ëllëg. tey jii ak ëllëg. muy sëriñ bi. muy sëriñ bi. doy nañu sëkk. doy nañu nu bëgg. ci lépp lu nu bëgg. doy nañu ci lépp lu nu ragal. ci lépp lu nu ragal. noppi na ci nun noppi na ci nun lu mat a faggu. lu mat a faggu. na ko. faggu te jubóo na ceeg boromam. te boromam moo ko fi nekkal. kon na seen xel daal bu baax a baax. kon na seen daal bu baax. rek mooy nan gën a gën a rek. mais li ci am solo rek mooy nan gën a góorgóorlu rek. nan ci rek. nan ci nekk rek. te sax ci dàkk. jërëjëf neen rek moo ci am solo. tabaarakallah jërëjëf sëriñ daara yi nga xam ne dañoo bëgg ay pàkk itam. na sëriñ daara yi nga xam ne dañoo bëgg ay pàkk itam. nañu seet lim bi nu mu war a toll. mu xam ko. allah ñu taxaw na boobaa dinañ ci taxaw incha allah. tabaarakallah jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf